dafa am ci réew mi te lu ko indi batiment ouvrier yaa ngi ci du maçon bi rek de li daaneel bâtiment du maçon rek maçon yaa ngi ci nag ndax liggéey boo xam ni amoo ci ay compétences munoo identifier les différent types de fer ah munoo def dosage des bétons munoo def coffrage bu normal yooyu yëpp day indi ay problème ci biir liggéey waaye am na ñeneen ñoo xam ne ay plombier lañu tamit yenn saa ngi gis. bâtiment di gajëf di gajëf ba jékki-jékki fàq nga ni foo ne maçon boo ko defal fekk na plombier bi la moo xamul ni muy seeree ay tuyaux defaloo ko ba mu baax muy commencé di seen ndox moom di dem ba rogalaat ba xëy def dégâts gis ngeen tam problème ci démolition koo xam dafa ñëw ne tojal leen ma sama kër gi damay defar beneen dafa am une démolition partielle am démolition totale démolition partielle nag moo gën a délicate ngay ñëw di toj dafa am étude boo war a def ah? étude environnementale nga xool ñu ne ci gox bi yëpp ni ñu tax a dëkkeek yow ak lépp ba xam doo leen lor xool yan engin nga war a indi xool ban personnel moo war a def démolition bi parce que problème boobu amoon na Dakar waaw personnel bi war a def démolition bi dafa ñoo leen war a former ci démolition ñu war a xam ni ñuy tojee ak ni ñu koy defaree bu ñu noppee tamit ñu xool ni ñuy évacuer gravats yi balin meeg salte yeeg yëpp yoo xam ne chantier ba ko fi indi woon ñu xool ni ñu koy dindee donc li ñu fi war a xeex dafa bari nombre de sécurité yi tamit dafa am ci change gis ngeen accident de travail yi nga xam ne ñoo koy def am na ñoo xam ne du xam wala yenn saa kab bi da leen sonal comme naa ñu den teggi teg fee te pourtant bu benn mool jóge woon fee ñëw dalu ci dal ci kenn bu ñëwee ci casque bi lay dal bu ñëwee dal ci sa tànk ci dal société de sécurité bi lay dal donc yooyu yëpp da ay normes yoo xam ne xale yi ñoo ngi koy jàng di góorgóorlu di am jom bëgg liggéey bi. ndaw yi nekk Touba déjà dañoo am benn échelle d'emploi échelle d'emploi mooy. boo ñëwee ci biir chantier bi ñëpp am importance ki njëkk nekk ci suuf mooy apprenti bi apprenti bi mooy ki nga xame ni day jékki-jékki ah ñu naan ko damay indi si woon ndox bi damay indi ma birig bi moom loolu mooy liggéeyam kooku dañ koy former di koy jàppale ba mu nekk un manœuvre bu nekkee manœuvre ñu jàppale ko ba mu nekk un ouvrier qualifié parce que formation boobu dans le tas lañ ko daan def nga xam da ngay toog 10 ans. nekk ci ñu naan la indil ndox indil nangam nee na loolu day jeex boo toogee maximum trois ans war ngaa mën a mën sa métier boo musul def sax maçonnerie war nga cee mën a am diplôme su fekkee ni tam yeneen corps de métier yi tamit noonu la waaw ki nga xamee ni tam yàlla def na mu jàng te xam ngeen léegi enseignement général xale dañuy jàng am licence man maa ngi ay bac plus am ñoo xam dañuy dem ba université ah jóge fa ñëw école des chantiers parce que xam nañ ni métier day loo xam ne dafa am solo boo jàngee itam boo ñëwee ñu bëgg laa jëmee dañ naan la lan nga man nga ne man de chef de chantier la wala chef d'équipe la encarrelage ampén ñi la ay ca ñëwal la nga liggéey donc foofu lañu bëgg a ndaw ñi ak jigéen ñi jigéen ñi tam ñu ngi ci bâtiment bi waaw ñun daal dañoo bëgg képp koo xam ne yaa ngi yëngutu bul xeeb sa bopp wutal qualification wut diplôme boo xam ne foo ko wone ñu respecté la jox la cër